les internautes ayca. kon tey la nañ bu baaxee ñu dem tey la nañ ma jël ma direct. te da dem cours. te damay dem cours maa ngi am cours te tey amul kii amul laam-laame. non tey moom amul laam-laame amul layaam-layaame. du moins amul layaam-layaame amul dara. on commence par. enquête enquête yéen kaay ñëw nañ ci assemblée nationale entre gloire et ñu ngi jëm ci élection assemblée nationale yi nag le 17. novembre bii di ñëw. Mhm. mu ngi nii de Lamine Gueye à Caroline Faye ces hommes et femmes qui ont le parlement quand les débats s'enflamment jusqu'aux altercations les plus jeunes députés défient les mu ngi nii député yu ndaw yi ne nag ñu ngi koy commencé ca Lamine Gueye ba fële mu ngi nii jugé hier à Tamba Bougane Gueye Dany reste éligible ba tey nag mën nañ koo fal falable na daal maanaam ñu dem. <laughs> merci léegi bu yéexee rek ci man la critique yéen a kaay ñoom ñun ci condamné à un mois avec sursis Bougane libre bàyyi nañ ko de mm-hmm. les faucons rase les murs mu ngi nii Bougane nag ba nañ ko démb ca Tamba lañ ko doon jugé El Hadj ba Hadj Bassirou Diomaye Diakhar Faye effectue la umra dem na démb de ca Kaaba ga lépp lu mu ñaan ci Sénégal pour mu jëm kanam yàlla na ko yàlla nangu bi jaaxil Seydou wujud ak bi jaaxil ki nga xam ni moo juddoo ca Kaaba kat di mm. Ali ibn Abi mu ngi noonu désaccord entre Abdou Mbaye et El Hadj Malick Ndiaye mu ngi nii de affaire des mille milliards ñoom daal ñu ngi ciy wax de kenn ki d'accordul kenn ki nee na mën na ne waaw l'évidence yéen kaay ñoo ñun ci Cheikh Issa Sall demande son rapprochement de Sonko neena na ak Sonko de Cheikh Issa Sall mu ngi nii bu mbuur je veux pas de leur carotte et j'ai pas peur de leur bâton nee na bëgguma ñoom ci lañuy ñuy sédd sédd waaye tamit ragal ma seenu yat bu ñu paree pour rëq sama ndigg sax lañu rëq mu ngi nii Cheikh Issa Sall moo nekk mbuur ah. moom waaw maa ngi nuyu monsieur Dia directeur stade de Caroline Faye quotidien de l'ancien régime fut comme la peste rejet de ses appels galère et trahison mu ngi nii Macky ak ñële Bougane Gueye Dany recouvre la liberté moom libre na de jaar nee na ma gaaw mhm. taala l'exclusive yéen kaay ñëw ñun ci relax pour rébellion outrage et sursis pour refus d'obtempérer le juge évacue les fonds le juge évacue les foudres du parquet Bougane échappe à l'inéligibilité xam nga affaire bi mu mënoon na jur mu ñàkk éligible maanaam ñu dem ñu ne ko élection yi mën a toocee bokk mais daal mucc na ci maanaam éligible na ba tey mu ngi nii nag Bougane bàyyi nañ ko démb fële ca Tambacounda kii di tête de liste coalition nag unité demande l'exclusif et se radicalise contre le pouvoir mooy Cheikh Issa Sall ba tey mu ngi nii nee na dew ma de kenn embarqué wu ma man ragaluma waa Pastef te bëgguma ca la ñuy séddale loolu la Cheikh wax bu baaxee ñu dem l'indépendant yéeni kaay ñëw ñun ci la coalition jàmb ak njëriñ accueilli hier en grande pompe à Mbirkilaan ñibbi Boulel Kaffrine coalition jàmm ak njëriñ nag jeeg jàmm jeexala ci coalition jàmm ak njëriñ juum daa dem ci son waali ba en démonstration de force Amadou Ba wane na dooleem de mu ngi nii de mobilisation waaye pomme du moroom mu néew de. Hmm. te ñoom taala de tam ñu cotiser. mu ngi nii condamné à un mois de prison avec sursis Bougane Gueye Dany libre bàyyi nañ Bougane quatrième jour de campagne tax wallu crée l' effervescence à Kébémer mu ngi nii de amul jaañ fa dafa la ne mu ngi nii Sonko nag moom nee ñi nga xam ne ñoo ngi taxaw pour yàq ko chargé na leen de waaw wow chargé na leen gars yi nag lu nekk lañ koy accuser ay terroriste ak indépendantiste ak nañ bàyyi accusation yi te indi ay argument l'info yéen kaay ñoom ñun ci en campagne dans le bassin arachidier Sonko Amadou les agriculteurs bi mu demee nag ci bassin arachidier bi mooy euh, euh, bët kii bi boori Saalum geeg jëm na le mu ngi nii dalal ne seen xel de ñii di baykat yi nous voulons donner des assurances aux agriculteurs aucun kilogramme d'arachide ne restera entre leurs mains bëgg nañ leen matala lépp lépp lépp lépp lépp benn kilo gerte du des ci seeni loxo maanaam lépp danañ ko jënd wala danañ xool nan lañu koy consommer ravitailler entreprise yi dans peu de temps ci lu ndaw nous allons fixer un prix de kilogramme d'arachide qui sera profitable aux agriculteurs nee na fii ak diir bu ndaw dinañ xool nan la ñuy waxee kilogramme bu nekk ci gerte ñaata lay jar des dispositions seront prises pour que Sonacos puisse acheter la totalité de la production agricole de cette année nee danañ xool na la ñuy organiser woo ba nga xam ne Sonacos dana mën a jënd lépp li nga xam ni bàyyi ngeen ko ci lu jëm ci wàllu gerte j'ai toujours cru que c'est l'agriculture l'élevage et la gestion efficiente des ressources naturelles qui sont le socle de l'économie d'un pays nee na damaa mës a yaakaar ni que ni mbay mi ak sàmm ki ak li nga xam ne mooy nañuy gérer suñuy ressources naturelles moom rek moom moo mën a tax suñu koom bu dëkk baax en peu de temps nous avons beaucoup fait ci diir bu ndaw kat la ñu def bëri na premier ministre Ousmane Sonko mooy wax ba tey ceux qui connaissent comment fonctionne un état savent si les actes que nous avons posés en sept mois sont rassurants ou pas ñi xam état na muy doxee dëgg xam nañ lii nga xam ne jot nañ koo teg commencé koo def ci set mois xam nañ ni ba xam dal na xel wala dalul xel premier ministre Ousmane Sonko gars yi ne nañ xel dal na l'observateur yéen a kaay Bougane Gueye Dany nee na défendre le pays vaut plus que ma liberté nee na day défendre Sénégal nee na looloo gën liberté dëgg la kay l'observateur yéen kaay ñoom ñun ci ba tey violence électorale à Koungheul récit d'un jour sant bés boo xam ne deret tuuru na de ñu bëri am nañ ci ay gaañu gaañu ay oto ay moto yoo xam ne tas nañ leen yàq nañ leen le centre de santé transformé en théâtre de gladiateur centre de santé boo de gars yi dañ fa doon mujjee doorante sax ay coups Malick Gakou victime d'une fracture ouverte à l'avant-bras gauche ñu ngi koy masawu Malick Gakou mm-hmm. yal na yàlla fëgg boppam ba mu tane jàmm Serigne Ndiaye maa ngi lay nuyu. mi ngi lay may loxo ngi lay tàccu Serigne Ndiaye. merci waay dafa baax. Mm-hmm. mu ngi nii de ayca. le mandat yéen kaay ñëw ñun ci Cheikh Issa Sall nee na demul Pastef mu ngi nii Bougane Gueye Dany bàyyi nañ ko marché financier international cent quatre-vingts milliards levé par l' état du Sénégal état du Sénégal yëkkati nañ ci lu toll téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñetti fukk ak benn mu ngi noonu mhm. Sonko Diomaye le point ñëw ñun ci Cheikh Issa Sall tête de liste coalition unité Ousmane Sonko je ne veux pas de votre carotte je n'ai pas peur de votre bâton waxoon nañ ko fi ragaluma leen bëgguma ci la ngeen di sedd Amadou Ba jàmm ak njëriñ accueilli en euro à Koungheul et Kaffrine Amadou Ba Amadou ja nee ci dalal nañ ko de fële. Hmm. Koungheul ak Kaffrine xanaa Diop si bokkul ci campagne bi ren. bien sûr. si mu ngi ci campagne. Ah, waayegul Amadou Ba. mais bu Madiambal ñëw ñun ci nouvelle empreinte Sénégal à fond la caisse. moom mu ngi ci àbb bi ci cent quatre-vingts milliards waaye nañ àbb bu dee dañuy àbb kay pour defal te luubaluñu sàccuñu ko defuñu détournement d'objectif àbb leen. moo gën sa euh, moo gën àbb di sàcc. àbb di warax. <laughs> nu nu nu ne honorable coalition. mbay warax lañ fekk ci keesu ministère de des sports bee nee nee jéggi na dayoo. Bougane nag commencé na campagne mu ngi nii de affrontement entre militants APR Pastef ak Koungheul Amadou Ba dafa mel dem na Koungheul daje na ak Ousmane Sonko. ñu saafonte ñu dem le soleil yéen kaay ñëw ñun ci marché financier international le Sénégal mobilise cent quatre-vingts milliards de francs CFA mu ngi ni se ressources sont destinées au financement de l' exécution budgétaire de l' année deux mille vingt-quatre da nga war a exécuter budget mm-hmm. yow nga déclarer un budget boo xam ne matul que fii ñëwaat kay bu matul am na loo xam di ko mën a yeggale mhm. même pour signer beneen budget sax il faut nga am ab loo xam ne koppar la bu mottali affaire bi maanaam tali yéene gañ doon wax dëgg dëgg dëgg dëgg fii la war a commencé Fatoumata Rassoul Diallo mii nag candidate de la coalition troisième voie ñetteelu yoon bi noonu la coalition bi tudd expliquer aux citoyens le vrai rôle du député nee na nañ xamal askan wi lan mooy njëriñu député les éco yéene kaay ñëw ñun ci le leader de gëm sa bopp kit Tamba Bougane ngay jël jóge na Tamba. Hmm. Tamba dégg naa tàng na. nga xam ne sursis la nekk nag. waaw sursis la nekk maanaam Bougane bu mu yóoxu Bougane bu mu bu mu kobose Bougane bu mu tooñ Bougane bu mu. ku ko sax bu mu wax yaa xamu kàllaa. na bàyyi provocation yi. bu mu. provoqué Bougane bu mu conférence de presse Bougane na dem campagne. bu Barth di wax. ci gàtt daal nañ na ko yaru. wala bu ab jibril ci gàtt daal na. yaru na toog. waaw yaru calme. calme sérénité bu Pape Djibril di wax mu toog tàcc Pape Djibril léegi dootu wax libéré Bougane dootu ko wax Pape Djibril léegi comme Bougane libéré nañ ko dootu wax libéré Bougane. mais xanaa ñoom tamit dañoo sonn ñu nekkoon ci meeting bi <laughs> fatigué meeting daa bëri coono nag. papa di nga dem ba ki ki wax ak yow doo bëgg lu dul mu ne yëkkati jotaay bi rek ba nga ñibbi. laa jël taal la xam naa ko doon wax ndeysaan. <laughs> gars yi nañ laaj taal meeting nu mu mel. violence inouïe dans la campagne lu ñaaw ci ay violence le cortège de Sonko violemment attaqué ak Koungheul état moom moo doon attaqué waate mais bi pas état la ñu attaqué Malick Gakou nag damm na. ci avant bras bi massa président les agents du GIGN ripostent violemment les assaillants fuient leur véhicule KSC ña nga xam ne ñoom ñoo def mbir mi nag daw nañ CNG Khady Diène Gaye nee na j'ai déjà fait mon choix mais président CNG. je pense guddi la ko wax ni ci la koy wax Ngom. <laughs> tey wala suba. ce ce soir la wax na. Malick Ngom. Free Malick Ngom. ca mm-hmm. les gendarmes témoins des faits l'ont blanchi ah gendarme yi dañ koo seetal de loolu la ñu wax pour refus d'obtempérer il a été condamné Bougane libération yéen kaay ñëw ñun ci mën nañ ko topp libération da nga ko fii liiraat fii sa xol di metti wala taala liiragu ko ministère des sports sur la piste des 7330 milliards de francs CFA envolés entre janvier et mars janvier février mars ci ñaari weer juróom-ñaari milliards ak lu teg téeméeri million ak fanweer ñetti téeméeri million ak fanweer moom lañ ne tuŋaañ yóbbu ci loo xam ne 7 milliards 910 mille cent mille 844 francs la ca des maanaam. matu wala boog lañ ca justifié mu ngi nii alloué au chapitre compétition internationale jongante yi nga xam ne ñu ngi koy def lu jëm ci jongante ak bitim réew yi nga xam ne suñuy dëkk suñu dëkk dana ci àddu ci discipline yëpp nag football ak yëpp basket ñoom seen est totalement consommé seul cinq cent quatre-vingts millions deux cent cinquante mille francs CFA ont été justifiés sept milliards yi juróom-ñaari milliards gi lu teg ñoom génnee nañ leen ci kees yi te waxuñu fan lañ ko dugal juróom-ñaari milliards ak huit cent ak yeneen yu teg moom lañ jox benn rubrique boo xam ne ci même domaine bi la ñu leen ñuy tuddee yeneen jënd yeneen mbir yu ñuy jënd mu ngi nii sept mille sept mille milliards huit jum naa sax ba ni sept mille milliards dama tiit sept milliards huit cent <laughs> deux mille huit cent d'où une disponibilité actuelle de la ca des ci li nga xam ne achat d'autres bien la la des ci sept cent huit milliards yooyu noonu sept cent quarante quatre francs moo ca des man lan moo tax may wax sept cent sept mille milliards huit cent deux mille huit cent mille yi nii moom lañ ne dafa am yeneen jumtukaay yu ñu ciy jënd waaye sept milliards yooyu noonu ak lu teg yi la ca des actuellement ca kees ba cent quarante 744 francs la téeméer juróom-benn fukk yu manqué un montant de 40 millions de francs CFA avait été alloué à la rubrique dénommée billets d'avion agents et famille 40 millions yoo xam ne pour jël ci billet d'avion la pour agents yi ak famille yi ñi war a dem xanaa famille joueurs yi bokk ñu tudde famille peut waa ministère ba la. 40 millions yooyu xam nga lu ci des quarante 148 mille fanweeri junni yu manqué. damay dem kay lu ma fi def. Bougane Gueye Dany libre le li quotidien retour triomphal de Bakel ah li triomphe notre œuvre sera bâtie sur la vérité Amadou Ba way wax de. Hmm. nee na lépp danañ ko lal ci dëgg. Mm-hmm. li ci topp. jaar doo woo Mansour Diop. Mansour ki koy woo dem na. point actu yéen kaay ñëw ñun ci libre après son procès Bougane Gueye en campagne le leader de Gëm Sa Bopp condamné à deux mois avec sur les vœux du président Diomaye exaucé ne ñaanu Diomaye bi de nangu na xanaa moo doon ñu ba ko. Anta Babacar Ngom salue de la gendarmerie en témoignant avec sincérité nos forces de sécurité montrent leur attachement. au valeur de vérité et de justice mu ngi nii de kon la woon woon na Anta Babacar comme nee na mu ngi jaajëfal di rafetlu li nga xam ne mooy taxawaay bi gendarme yi am maître El Hadj Diouf wax na c'est un dossier vide les gendarmes eux-mêmes ont mentionné qu'il n'y avait pas d'outrage gendarme yi ñoom ci seen bopp nee lii ñu ji ñoon amul Bougane nag demande na ci ay activités mu ngi nii les militants de Pastef et l'APR s'affrontent fële ca Koungheul deux minutes pour lire l'essentiel enfin chez soi enfin Bougane ñibbi na finance publique cent quatre-vingt-un milliards yi la ñuy àbb nee nañ réew mi quotidien ñëw ñun ci violence dans la campagne électorale Sonko attaqué à Koungheul man xawma ko attaqué Sonko tamit am na fit wala kooku noonu yow normaloo sa xel mi day négligé de nombreux dégâts matériels enregistrés des dizaines de blessés dont El Hadj Malick Gakou massa président Malick Gakou mm-hmm. bu baaxee ñu dem source ay yéen ñëw ñun ci le juge déchire déchire le réquisitoire du maître des poursuites et la le leader de Gëm Sa Bopp Bougane Gueye Dany pour les chefs d'accusation de rébellion d'outrage à agent terrasse le proc ah nee nañ daa daane procureur dëgg la mu ngi ni violence à Koungheul a ngi nii politique daal boo amee ay argument jaara hmm. doo nekk di def violence dinga nga di nga politique daal la war a politiquer def ay débat di de avancer ay argument ak ñoom seen Sud Quotidien yéen kaay ñoo ñun ci condamné à un mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer Bougane libre de battre campagne bàyyi nañ ko nag de mën na campagne yi ji de mu ngi nii Amadou Ba nee na il est temps que les Sénégalais du mois de mars nee na Sénégalais nañ defaraat jumte gi nga xam ne jum nañ ko mois de mars bi ñu jóge nee na doon fal gi ñu fal président ba Bassirou Diomaye Faye nee na juum la Amadou Ba wooy wax de mu ngi nii turbine yéen kaay ñoom ñun ci condamné et relaxé condamné nañ ko nag maanaam teg nañ daan ci kawam waaye bàyyiwaat la bàyyi waale nañ ko le juge de Tamba Aoun Camara libère Bougane bàyyi na Bougane nee na ko demal il est condamné à un mois avec sursis et assuré au paiement d'une amende de cent mille francs cent mille francs lay fay kan lañ fi amandoon gars ñoo koy fay du Sonko deux cent millions ku ko fay. ba tey gaa gaa yi ñoo waxoon ñoo koy fay de. doo laal fukki dërëm. fii nag xanaa peut-être militant bu gëm sa bopp yi mobiliser wu kii ko fay ko. il n'a pas forcé le barrage disait le gendarme Gakou gendarme Gakou nee na forcé le barage mu ngi nii au premier barrage nous n'avions reçu aucun ordre d'arrêter son ci barrage bu njëkk bi daa amuñu woon ordre Tamba sous surveillance policière hier. même le marché central a été fermé waaw marché bi newoon nañ dañ koo tëj jugal jugal jaara jugal jugal tëdd xaju fi looy tëdd 24 heures yéen kaay ñëw ñun ci tribunal de grande instance de Tambacounda Bougane est libre il époque d'un mois de kii non avec souci la coalition Soppi Sénégal SNHLM dans un état piteux l'entreprise est confrontée à une dette alarmante de 12 milliards de francs CFA sàmm Ndiaye génnal fii nga nar a dem. déjà li ko topp rek daa bari. pare nga dem fekk fa douze milliards ci bor. d'accord. Vox Populi ñëw ñun ci taxawalu attaque la caravane Sonko à Koungheul ñi leen taxawalu la mu ngi nii. Le GP dénonce une tentative d'assassinat waa Grand Parti. Il exige l'ouverture d'une enquête pour arrêter les commanditaires et les exécutants de ce plan de liquidation. Maître El Hadj na mu ngi jubilé yëkkati na loxo mm, daam waaw nous venons d'enregistrer une grande victoire nee na lii ndam lu rëy la. félicitations ndam ca kaw ndam yi. Walf fu yéen kaay ñoom ñun ci bonne gouvernance sàmm sa kàddu corrige le projet waa sàmm sa kàddu ñoom nee dañoo sàmm seen kàddu mais projet bi ñoŋul. baaxul lañ ca wax amut Koungheul le convoi de Sonko caillassé sànni nañ leen ay xeer de ne jooy yoor yoor yéen kaay ñëw ñun ci protocole du Cap Manuel Macky Sall met à nu les mensonges de Madiambal Diagne ah nee nañ Macky weddi na ma Diagne ca lan ca la mu wax ca protocole Cap Manuel bi maanaam déggoo gu mu wax ni am na ci diggante président Macky Sall Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar fay pôle centre Kaolack Kaffrine Koungheul Sonko expose son plan de développement de l' agriculture et de l' lii de soxla nañ ko ngay wax gars yi lan nga am yéene defal leen ko wax na ca mbay ma wax na ca sàmm ga parce que jàpp na ni mbay ak sàmm kat. ñoom ñoo war a mën a tax komug réew baax. Mhm. maanaam komug réew pour mu taxaw dëgg dëgg dëgg il faut que li taxaw secteur privé Serigne Boub appel mu ngi nii de le premier ministre Ousmane Sonko a démantelé la mafia maanaam. ci biir secteur privé bi am na mafia nee na nag kii di premier ministre Ousmane Sonko na kalaate deal bi waaw kay baax na le record yéen kaay ñoom ñu ci Pape Matar mais à genoux les citizens maanaam Pape Matar Sarr waa Tottenham ñoo gagné Manchester City mu ngi nii. d'accord. jeex na. la bu baax a baax professeur Sourou. Ah, maa ngi leen di ja amoon yow plateau bi. maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit su ko defee rek ñu gaaw libéré la heure bi léegi mu jot. waaw heure bi kay léegi mu jot man mhm. maa ngi maa ngi maa ngi ñëw dem nii. Mhm. incha allah euh, kii ah euh, Pastef mhm. ki nga xam ne moom la ñu investir euh, fële te mu dëkk wàq naan di honorable Mamadou.